démb nag Wally Seck moo doon génnee benn clip bu doy waar ak Mia Guissé waaye nee naa la yi xeetu image ñu daal di ciy gis nee naa la Maria Sine may sa bige Maria Sine Mar moom dafa mën clip waaye nee naa la bu leen seetaan clip bi mu neex a neex a neex ba ngeen bañ a déglu parole yi nga xamante ne rek moom la daal di def ci woy bi ndax nee naa la booy déglu musique dangay ngay dégluwaale parole yi ndax parole dafay jàngal nit ci àddina wal waaye parole dafay changer ki nga xamante ne moo nekk ci benn yoon bi nga xamante ne baaxul rek mu daal cay jóge ndax nee naa la Euh, waali nee na boo dee jigéen nga toll ci sëy rek dangaa war a sëy waaye boo dee góor nga toll ci takk jabar danga war a takk jabar nee naa la parole ya daal di nekk parole yu am solo ndax nee naa la xale jigéen yi léegi bëggatuñoo sëy ñoom léegi ay meuble lañu def seen bopp ndax def sa bopp meuble weesuwul nga daal di ne mënga mëngaaral doon jànq bu rëy bay waaj a dëj ndax ñambi bu dëj kenn du ko lekk nee naa la waaye ñambi suukar bu dëj kenn du ko lekk ndax nee naa la boo demee di defar say cër fu ne nga daal di fay opérer fu ne nga daal di fay sol ay silicone waaye fu ne nga daal di fay opéré opéré say ween say taat lépp nga daal di koy defaraat ba pare waaye boo amul borom kër perte nga dëkk nga perte ndax borom kër ak njaboot la nit di tiitaroo nit da nga war a fexe ba am borom kër guy topp ci sa ginnaaw même bu dee dawalkatu saret waaye nee naa la même bu fekkee ne sax jaaykatu ngooñ la waaye nee naa la même bu dee dokeer la wala puus-puus waaye léegi xale jigéen ñi ñoom lan la ñuy concouré mooy dem defi chirurgie defar seen yaram ba kenn xamul lu ñuy nurool jéemu ñoo say jéemu ñoo wut ku leen takk waaye topp borom Eh, daraja yi ak borom ñi nga xamante ne dañoo bakkane rek di leen roppat di lekk seen xaalis waaye nee naa ñu nee naa la ñu leen di yóbbu ay Dubaay ñuy jëri valise di dem Dubaay loolu du dundu àddina dundu àddina da ngay sa vie ngay liggéey am personnalité dignité waaye boo gisee góor gu baax gu la takk bu dee jaaykatam ngooñ sax demal mu takk la nee naa la woy ba nga xamante ne Marie mu ngi koy woy ci woy bi mu ngi jàngale di jàngale àddina ndax boo nekkee nit nee naa la nit ñi di la déglu waaye ñu lay bàyyi xel nit ñi di la jox nopp te loo wax ñu topp ko waaye loo def ñu daal di ciy toppaat rek da nga leen di jox ay message yu foor yoo xamante ne buñ ko dégloo rek bu ñu nekkoon ci lu bon rek dinañ ko changer ndax Sénégal gii ñu nekk am na fi ñoo xamante ne dañoo am jëkkër ba pare am far gis nga nag jigéen jigéen ju ci am jëkkër ba pare am far dëkk nga perten ndax góor ga nga nekkal saa yu nekk dina la nukus ba nga ne zuuy te lay tooy du juge ca moom waaye ci yow lay juge ndax nee naa la góor du takk jigéen ju bon di am ak moom njaboot waaye du takk jigéen ju bon di ko yóbbu këram nee naa la ka muy yóbbu këram day toog ki toog day nekk ki toog ci toogukaay bi ki toog ci pooju ndayam waaye ki nga xamante ne demul dikkul ki xam boppam waaye nekk jigéen ju saytaane fumiste rambaaj dina saka nocci yaakaar ne yow la ngay na saka nocci dina sotti dara du ca sotti ndax nee naa la yàlla borom bët bu rëy bi xam nga ñan la àndal aji ñi dëggal leeral jubal ñooñu la àndal waaye boo buggee nekk ci àddina di ruutaalee ka jaxasee ka saytaanee ka pimistee ka ràmbaaj doon jigéen ju ne mën nga mën ngaaral dem defi sa cerise yi ñëw toog góor gu ne ña konko nga jéem a lekk xaalisam yaakaar ne da ngay lekk xaalisam gis nga góor ñi nag boo ñëwee di nga lekk seen xaalis waaye gis nga sa yaram bi du ko fekkee ndax di nga tas ba tas ne tasar ba pare bés boo amee doom nag ñu naan sa yaay fi defoon lii moo fi waxoon lii ñaaw na jigéen ñi soppeeku leen changé dee leen déglu parolu Wally Seck yi nga xamante ne moom lay woy ci wayam bu leen di seetaan images yi ak clip bu rafet bi ba du ngeen déglu paroles yi ndax nee naa la moom il est parolier comme na ko bàyyam bu baax ba ñuy jooyte noppeeguñu di ko ñaanal fa mu tëdd rek gënal ko fi mu jugee doon defee noonu la koy defee ci tànk yooyu la nekk te nee naa la Wally dafa jug rek pour jàppale jeunesse bi ndax nee naa la ki nga xamante ne moom la defal clip bi mooy Mia Guissé waaye ki xamante ne moom la defal clip tamit mooy Virgi moom day xool xale yi nga xamante ne am na talent waaye xale yi nga xamante ne mun nañu li ñuy def waaye xale yi nga xamante ne am nañu capacité rek mu daal di leen xëcc à vers moom rek Ah, di defak ñoom ay clip waaye di def ak ñoom ay featuring lool dafa baax ci showbiz bi nga xamante ne moom lañ nekk waaye xale yi bëgg naa ngeen di déglu parole yi nga xamante ne moom lay wax nee ndax nee na jigéen boo tolloo ci sey danga nga war a sëy waaye jigéen góor boo tolloo ci takk jabar da nga war a takk jabar ndax àddina bi kon dund fi téeméeri at delluwaat doon gune kenn amu fi cinquante ans wala trente ans delluwaat am dix huit ans wala dix neuf ans kon lépp lu waay di def rek na nga ci bàyyi xel te boo doonee jigéen am na foo xamante ne fa nga war a teg sa tànk am foo xam ne waroo fa teg sa tànk ndax yaa ngi teg sa tànk foo xamante ne boo ko fa tegee mu màbb ndax dëgërul kon jigéen ñi xoolaat leen ci li ngeen di def yéen habillage yi yéen yéen laay wax nag yéen ñi ngeen xam ne ay habillage ngeen démb wax naa leen ko maa ngi leen koy waxaat dama ciy insister ay habillage ngeen gis nga nag nit koo ne doo dara mu mer waaye du ngeen dara ku ci dee juróom-ñaari perkaal lañ lay muur revient sur terre wàccee leen seen bopp gënu leen fee muus nit ñi gis nga booy lekk xaalisam nit yaakaar ne yaa ko gën a muus dalaa bàyyi ci biir moo la gën a muus téeméeri junni yoon dalaa bàyyi ci biir waaye bés bu bés ba ñëwee nag nga xam ne lépp dëgg la ndax bés bu bés ba ñëwee yàlla di la weer naan la nag la nga doon def kaay nga sibir ko bu boobaa rek yow nanga ko sibir kon yéen ñi nga xamante ne yéen ay dem di def chirurgie yéen ñiy defaraat seen yaram yéen ñi nga xamante ne jéemu leen a sëy jàpp xale góor yi di leen roppat ah, gis nga booy lekk xaalisam nit yakaar ne yaa ko gën a muus dalaa bàyyi ci biir moo la gën a muus téeméeri junni yoon dalaa bàyyi ci biir waaye bés bu bés ba ñëwee nag nga xam ne lépp dëgg la ndax bés bu bés ba ñëwee yàlla di la weer naan la nag la nga doon def kaay nga sibir ko bu boobaa rek yow na nga ko sibir kon yéen ñi nga xamante ne yéen ay dem di def chirurgie yéen ñiy defaraat seen yaram yéen ñi nga xamante ne jéemu leen a sëy jàpp xale góor yi di leen roppat di ah, ak di lekk seen xaalis paral woppaaral bëgg a dërëm di jaay muus yaakaar ne da ngeen a muus te seen bopp yi ndox nekku ci wéru leen seeni bopp ndox nekku ci ngeen naïf naïf weesuwul nga toll ci say bañ a choisir ku nit mu takk la waaye ngay xaar rek naan da ngay xaar kuris yow yaa xayti mu laanaa looy xaar ci kuris donc doo du la takk bu seen wërsëg àndee yëf ya fuul yàlla ubbi wërsëg ya ngeen daal di am gënul nga fekk ko mu yor mun na laa takk sax yaa xay timulaanaa nga bañ kaa jig xaalis ba ne fur dem ñu tuddee la lan jigéen ju ay gaaf eh dem leen seeg maçon yi sëy ji leen ak borom sareet yi dem leen seeg jaaykatu ngooñ yi sëy leen ak dokoyeer yi nit dangay sëy ak nit nga jig ko war sëgam ubbeeku léppam daal di ubbeeku xale yi lu tax bugg a sëy nag man li tax bugg leen a sëy laa xamul sëy leen say baax na de sëy am njaboot dafa neex yàlla nag moo joxe njaboot waaye sëyal yow sëyal rek sëy lañ la sant sëyal e eh, alakama sàlla naaxira atoy sa sabali bref nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci kan bii ju ngoone mi nga xamante ne moom pusaam rek la yor di ñaw nee naa la bu defee lii ba ñu neenoon na rek mu daal defaat li waaye nee naa la kër démb mu nga invité ñoom bibiche ñuy togg waaye bibiche sombi laa gis mu togg sombi nag bu leen yaakaar ne dafa yomba togg am na ñoo xam ne mënuñoo togg sombi ku yaakaar ne sombi dafa yomba togg rek demal nga togg sombi ñu xool ndax jaar na yoon wala jaarul yoon waaye pendant que ñu ngi togg di def seeni affaire nogoy karangay laay mer bu fut ndax nee na euh, Bijou Ngoné daa def ségrégation daa invité ñi bàyyi ñi ñoom astulaw be ñooñu nga xamante ne nee na seen yaram yi mel ni nag pata ba mënatuñoo yëngu yëngatu waaye astulaw bi nag dama lay jox benn secret yow war ngaa dem saal nag toj sa yaram bi astulaw bi dangaa rafetoon mais léegi fi mu nekk nii yaa ngi sol yaram de xaw ma danga def planifié lañ koy wax xaw ma palaalin euh, sol nga yaram yaram bi nga sol rafetul demal saal nga toj sa yaram bi forme bu rafet nga am boo tojee sa yaram bi saal rek boo ñëwaatee da ngay dellu siwaat waaye fi mu nekk nii mënatoo yëngatu danga nga waaye nee naa bi bi euh, nogoy karaa ngay xuloo nee na lu tax biisu ngoone invité wu ko nogoy karaa xam naa biisu ngoone xelam moo ci nekku rek ndax ku xam Bijou Ngoné xam na nit ku baax la waaye nit ku mën a defar la waaye nit koo xamante ne tusaam la yor rek di ñëw ci àddina kon euh, nee naa la euh, bu la invité wul bii tamit beneen di ñëw rek dina la invité waaye man Bijou bés boo ma invité man mbaxalu saalum laay togg rek ndax nee naa la mooy sama plat préféré te moom rek laa mën mbaxalu saalum wala suppu kànja boo ma woowee rek ma daal di ko fay togg waaye nee naa la daal en tout cas mention spéciale à Bijou Ngoné félicitations yow réew mi defoo fi lu ñaaw lu ñaaw waaye yow da nga yor sa pusa ñi di ñaw waaye togg nga waroon nga caa invité uh, ka nga xamante ne mooy uh, law bi mu daal di ñëw rek def ambiance am waxuma mu togg ndox toggoon nag mu daal di ñëw def ambiance bu am jom waaye nee naa la ki nga xamante ne mooy dem di liggéey xaritam tikelaw bee ko wax nag du samay kàddu kiy liggéey xaritam na bàyyi liggéey bi loolu baaxul dem ci sëriñ amoo dara loo fay wax lu di joxe turu jàmbur bés boo ko defee ba mu këpp ci sa kaw nag loxo dina dar gémmeñ fu fuñ ko foogeewul te bu boobaa di nga am lu la metti lool nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci kan <laughs> Sénégal nag moo neex Sénégal moo neex dangay ñëw fekk jëkkëru jàmbur nga jël jëkkëru jàmbur ba pare di def di sa ay taraak ak di gaaruwaale fi mu nekk nii nag nit ñi amatuñu jàmm ñi nekk aawo amatuñu jàmm dégg naa ñeneen ña ñu ngay delluwaat di xeesal daal di dindiwaat muuraay ya ñu defoon gis nga góor bu ci di aawo bu ci yaakaar na yow sa jëkkër laa takkal ñaareel ba tax nga bàyyi sa bopp na yaj na yasar xam nga dégg naa jabaru Balla Gaye buri bàcci li moomu sama xarit boobu dégg naa moom delluwaat na di xeesal dindi na muuraay bi gis nga ku ci nekk naan dangay jaay kilifteef di muuru di jaay kilifteef gis nga góor ñi xam nga lu ñu bëgg lu féroce lu sexy lu tax ñuy génn ci biti doxaan di leen bàyyi dañoo bëgg lu sexy lu sexy lañ bëgg góor ñi ak lu féroce gis nga jigéen ju ciy jaay ibaadu ibaadu góor sa jëkkër da la fi naan ñuk dem ca xale yu ndaw ya dem takki leen xoola dañuy dem takki leen baa ñu di leen doxaan di leen jox xaalis bu ci kenn nekk di muuru sellal baax na solal yére yu yiw yu sell waaye boo fi nekkee di muuru sa jëkkër dem doxaani ca xale ya ndax góor xam nga lu mu bëgg lu sexy bu leen bàyyeeku defar leen seen yaram bu ci kenn bàyyeeku defar leen seen yaram bu ngeen di bàyyeeku lu day li tal fatal ay ni xoola seen jëkkër yi nee naa la dinañ leen takkal wujj nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci ñi nga xamante ne ba tey rek ñooy nekk ci biir kër yi nee naa la di def ay kalan gis nga kalan ci biir kër ku ko bàyyiwul non seulement benn di nga dellu ginnaaw waaye ñaar yow di nga weet yow kese sërux ndax nit ñi xoola nee naa la dinañ juboo dinañu ànd dinañu ree dinañu kaf dinañu booloo nekk benn boo ñëwee pour jaxase leen yow ci sa bopp yaay jaxasoo ndax xam nga lu tax dangay ñëw fekk nit ña di kaf di ree di waxtaan di ambiance di belli di naayi te bu kenn jaral ci àddina nit ñoo wax la dara ba tax ngay bàyyi sa nit bu ko def parce que nit ñaa ngi saytaane fimiste rambaaj mën a duul mën a jaxase li tal fatal ay ni xoola seen jëkkër yi nee naa la dinañ leen takkal wujj nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci ñi nga xamante ne ba tey rek ñooy nekk ci biir kër yi nee naa la di def ay kala gis nga kala ci biir kër ku ko bàyyiwul non seulement benn di nga dellu ginnaaw waaye ñaar yow di nga weet yow kese sa ruq ndax nit ñi xoola nee naa la dinañu juboo dinañu ànd dinañu ree dina dinañu kaf dinañu booloo nekk benn boo ñëwee pour jaxase leen yow ci sa bopp yaay jaxasoo ndax xam nga lu tax dangay ñëw fekk nit ña di kaf di ree di waxtaan di ambiance di belli di nayi te bu kenn jaral ci addina nit ñëw wax la dara ba tax ngay bàyyi sa nit bu ko def parce que ni ñaa ngi saytaane fumiste rambaaj mën a duul mën a jaxase capable coupable doon ay saytaane saytaane nit kese la du rab du jinne du dara nit la ku yori nopp dugg ci biiri nit di routale bul déglu kenn jàppal sa njàmbur jàpp fi nga jàpp diw def na nangam nee ko bàyyil ba ma gisal ko sama bopp wala bàyyil ba ma def ba mu def ma ko bul meral kenn meram wala ngay jaxasoo kenn ci jaxasoo jàmbur saytaane pimiste rambaaj amul place fenn xam nga fan la am place ca xaj ya la am place ngeen bàyyi ko mu dem ca xaj ya nee naa la bu leen seetaan vidéo bi mu neex a neex a neex ba ngeen fàttee ñëw le soleil chez Adams ala lagin de somon ngeen jàkkaarloog dexu maam sang bris bi di leen dugg ngelaw lu neex di leen dugg ngeen di lekk seeni crevette calamar brochette de lot poulet frite poulet yaasa coof dorad euh, gambas ba pare ngeen di lekk xoola langous Cameroun sigaal lépp ñu leen koy servi brise bi di leen di dugg rek muy neex lool Zeyna Ndour Zeyna Ndour madame Bey nee naa la foo nekk fi réew mi tollu yaay jéeg bi toog ci toogukaay bi say ci sayukaay bi waaye nee naa la yow la sa jëkkër nob nee naa la ñuy sëy ñëpp sëyuñu yow yaay sëy yow la sa jëkkër nob yow la teg place am nee naa la yow la sa jëkkër xoola riig ci riigukaay bi nga toog ci toogukaay bi say bànqaas ak say reen yàllaa ko teye kenn mënu koo déjjati te ku koy jéem a déjjati nee naa la yàllaa laan na déjjat rek daal lay sànni ca xaj kon Zeynaandour xoola seyel ba sey fa am njaboot gu barke loolu lañ lay ñaanal nee naa la sa yaay dafa baax Massiré Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaan deful ci réew mi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw moo dégg daali démb daali tey daali masa yaa waaye moo indi trophée ya fépp jëli trophée rek daal di koy indi ñu netti noonu mu ubbi club bu mag club ba nag xoola nee naa la club ba saaloo saala nga fa saalu conférence saalu nangam saalu nangam saal yëpp a ngi fa nee naa la eh, Masira Issa Dieye Fatim Penda ak Mañaan doo saytaane doo fimiste doo rambaaj nee naa la yow dangaa créer employé di doxal kër ya nga employé yaa ngi liggéey Masira Issa Dieye Fatim Penda ak ah doy na waar IFS, Institut Fatoumata Sao, est un établissement de formation professionnelle supérieure privée. Forme des étudiants dans les filières suivantes. Transport logistique, marketing, commerce international, comptabilité gestion. L'admission se fait sur examen des dossiers. Les inscriptions ont déjà débuté. Début des cours le 1er septembre IFS, pour tout renseignement, veuillez nous écrire à institutfs49@gmail.com ou appelez-nous vite au avec IFS, notre approche de la formation professionnelle au Sénégal.